jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ki ñu toogal nag Alboury la Birame Ndiémé ah nen saxal affaire bi mu dugg jëlal global bi yëpp nga dugal ko waaw envoyé nañ la lépp connexion bi moo demee woon noonu waaw ah, la ni ma wax ah, sama vie privée tamit di ah, wax sama frère sama nen vie privée ngay waxal wala ngay wax sa vie privée waaw waaw loolu nag loolu boo ko monté loolu dawul yaram loolu kenn du ko fii <laughs> xoolal jëlal global bi nga dugal ko instant bi Lamine a ngi nii dékk ma caméra ak micro li ma wax en direct la Sénégal yëpp laa la clamé nee li ma la wax. waaw wuyu wuyu kii defal li ñu la wax bul insister boo insister ñu nokku la. maa ngi lay ziar bu baax Albouri Birame Ndiémé borom maam maa ngi lay bëgg bu baax doomu yaay Bokar ak Beuz <laughs> waa Lutte TV maa leen di siyaar bu baax a baax. ay sant bu baax a baax li ci ëpp jàmm de. nee ngi. Alboury Birame Penda Ndiémi. Alboury moom nee na benn la rek. waaw waaw loolu junni la ak 5000. amul différence. surtout Cheikh Tidiane. waaw waaw mu baax mi. maa yaa ngi ci jàmm. <laughs> waaw ñu ngi sant bu baax a baax a a baax. la man dama laa namm bi nga bëree ba léegi gisuma la yow doo dox doxantu xanaa. non nee naa la sama namm ngay utiliser voilà. tax mosuma dox ci mbedd gis. non man nag wax dëgg yàlla man man suma kër laay toog. entraînement laay génn su ma paree ak reer yi waaw des ma dem reer yi des mu dëgg rek xam nga foog nga génn gis ak yi waa mbër naka mu waaw nga leen waaw damay reer ni mais xam rek gars yi jàpp si. nga reer ci kër gi nag. ah non bu ma su ma si toolee fa dama koy def mais instant bi nii nii boo toogee ci kër gi te yoroo loo reeree lees waxul. léegi dina ñëw ci reer bi léegi Alboury foog nga fàttali nit ñi. ñaata combat nga bëree ko parce que Alboury gars yi maanaam ni ñi xam làmb wala ñi lay topp jàppe nañ la mbër mais ñi ci des moom jàppe wuñ la mbër bu fàttali ñu say palmarès nga ñu ñaata combat nga bëree ko ak ñaata victoire nga man maa ngi ci euh, maa ngi voilà neuf victoire voilà. amu ko defet loolu ay jooy rek la amagu si yàlla yàlla musal waaw faxas ko caka metti <laughs> naqari ah bois defet ak métti. defet ak métti. defet waaw moom euh, kuy bëre nag yaay daanu. voilà kuy bëre yaay daanu mais juste rek euh, ku daanu amul. ku dul daanu sax doo dégg papa. waaw <laughs> loolu dañ koy loolu koy amee rek jàll. ku daanu amul. yàlla yàlla nañ ci yàlla musal. ndax wax dëgg yàlla euh, ku dul daanu amul mais yàlla nañ ci yàlla musal defet moom wax dëgg yàlla du ma ci développé ndax du sama plat quoi. defet moom du ma ci wax. yow ndam nga ndam voilà non daan am na gëm nañ ko ndax ku dul ku dul bëre doo daanu voilà ku dul bëre doo daanu mais yàlla nañ ci yàlla musal du ma ci développé ndax maa moom seekuñu dara ay defet defet seekuñu dara maa ngi moom. bu ko mu lay. non du ma ci wax. waaw fi mu ne nañ wax ci victoire yi. léegi rythme bi nga ñëwee da ngay da ngay bëre dëgg la mais da nga ko boole ak comédie. waaw mbër plus comédie bi comédie bi est-ce que dina mën nëbbu sax mbër. ah mbër plus voilà ñun moom wax dëgg yàlla dañuy wax. dañuy bëre soulager nii la ñu mel quoi nekkuñ loo xam ne dañ koy forcer wala loo xam ne dañ koy imposer nit ñi ni me ni niñ mel nii noonu la ñuy waxee ñoo waxee neneen beneen sens lu dul nii léegi nag bu ko nit ñi gisee di ko consommer ñoom ba ci dee ñoom loolu ñoom la ñoom la concerné quoi ñun moom wax dëgg yàlla toujours rek lépp luy xam ne day bégal nit ñi duñ ko bàyyi. mais yaakaaroo loolu dem ba nëbb sa mbër. waaw non garaawul yàlla. seen adversaire yi bañ laa jël comme ni ñu koy waxee nga bëri war a bëri ba mu la comédien nga. si jëlul ku ne danga ma waaw ku ma si jëlu da nga ma ragal te bàyyi mu fi benn mbër suñu waa kër rek laa fi bàyyi waaw. daan nga zoo technique yàggul dara yàggul dara te nga ci ki nga xamante ne moom mooy njambaan mais sa combat ak njambaan dafa yomb de nu mu demee loolu doole la non ah xaw ma de man en tout cas daal moom lépp lu mu laaj dama koy def voilà indi entraîné nañ ba état bu ñu war indi ñu indi ko voilà li des nag yàlla moo koy mottali xaw ma la ay mystique ak yooyu yëpp. ñun daal en tout ji def nañ ci li nga xam ne moom lañ moom lañ war a def pour ñu may ñu ndam man lañ maa liggéey ba ma yàqu ci làmb ji. liggéey pourtant kii neen da ngaa jël sëriñam de. ah sëriñu sëriñu euh, Njambaan wowul. sëriñu Njambaan Njambaan de wax dëgg yàlla man fa may foree moom du fa sax je je bokkuñu sax fu ñuy foree voilà fa may lekkee sax moom du fa raxasoo bokkuñu sax. mu ni sëriñ moo ko tëraay ci combat bi ñëw ci. ah loolu diggante moog sëriñ la man laal wax suma sëriñ yi ma doon liggéeyal premier combat ba tey ñoom laa liggéeyal loolu wu ma ci kenn kiiwu ma ci kenn ñi may liggéeyal doo nañ ma. doo ci am sa yeneen nag ñaanal ma toog jàppal ma kurus ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax mais instant man pour Alboury am sangool lii wala defal lii wala suula lii ma suul. loolu day fekk ñu kóllëre quoi ñu ñu seexoon ko ndax xama rek sëriñ dafa gaaw na euh, dafa wor kii dafa wor kii te man dinaa wor ñëpp wala dinaa kii ñëpp ba mu def sëriñ ndax sëriñ yi en tout cas balaa ñoo dugg si yow dañ lay defar li si jël sa turu yaay sa turu papa voilà xam ko en attendant téye léegi boo leen boo leen woree wala nga def ci loo xam ne waroo ko si def wala nga dig loo ci mun loo munul heure buñ la bëggee yàq dañuy toog ndànk yàq la ndànk ngay dox di feebar di dox di ndoxum siti doo xam loo ko def voilà sëriñ moom wax dëgg yàlla li ma ci yor maa ngi maa ngi leen di maintenir ku ma ku am sa yéene ñaanal ma nga ñaanal ma ma jël ndax euh, ñaan moom du doy. kon da nga ko da ko ëppoon doole parce que li ko daane laa. moom moom moo ma moom moo ëpp combat moo ëpp doole moom ma ëpp lépp mais maa ko daan dama ko dàq daanal non daaneel maa ko dàq daaneel rek jàpp rek daan la. mën naa ko yow ko mën ndax da ngeen a dégg yow yaa ko. mënu mais daan moom dama ko mën. sa famille bala wala. non fa ñun ay famille temps ñun lépp lu dul temps ñu ko pa ñun dañuy daaneel daaneel kin sal fasa kin taas kita borom bax cakit waaw laal ron ku kun ku kun kun kun re re ki jër loolu moog alburi bi ñoo ànd caagi rek soow la da ngay xool tuur rek wala nga xool naan. affaire kon ci ah, du ci mburu mi ci beurre bi la. waaw loolu mënul ñàkk ndax. Euh, ñun ay élément temps lañu yow boo ñëwee suñ kër war ngaa xam ne ñun ay élément temps lañu ñoo nga ñun suñ kër dégguñu dañoo fekkee loolu la yàlla dogal ñun dañuy dañ koy yoole di wax muy neex di jëf muy neex. yéen daal kenn nettaluwu leen. non kenn nettaluñu ñun dañoo fekkee lépp. waaw mais say maam nag fekke wu dara te lu may dégg ngay wax ci ñoom lu bare bare loo fekkee nee naa la nopp moom ak borom voilà jamonoy sëñ Touba fekkee wuñ ko mais buñ toogee di wax ci sëñ Touba da ngay xam ne ñi eh, day yenu maanaa fekkawuñu suñu ja fekkawuñ suñu jamonoy maam waaye tamit wax dëgg yàlla liñ ci wax doy nañu te liir nañ ko jàngu ko wax dëgg yàlla toog ay mag li ñu si wax du dañ. ndax xel nangu na nit tooñ ko mu dajale leen bañ met fukk. loolu loolu xel nangu na ko. loolu xel nangu la ko sama maam taxawaay firaw na la taxawoon moo ca kaw ah ñaan mu may la waaye ku ko tooñ mu duma la. daawul baale. non ku ko ñaan mu may la waaye ku ko tooñ mu duma la baale lan. ndax boo leen baalee bu ëllëgee dañ koy defaat ñafal ñafal waaw. <laughs> loolu dem na. loolu démb la ñu jël ko boole ko tey boo leen dañ koy defaat. Eh, Zalba ngeen Zalba Zalba nga ne la. ma maam ji am na benn defet na la ko nettali. sa maam am na benn defet. sama maam defet bi mu mës am dafa xiif nee naa ñun ku ñu yàpp ku ne da nga ñu fekk ñu xiif reeraguñu waaw boo reeree boo reere reeragul ba pare dugg ci loo xam ne munoon ndax des fois dañ doon risqué samay maam dañuy risqué. reeru ba pare dem na day xare ji voilà. loolu xalaatuma ko xalaatuma loolu man koor bañ ko bu ma ndogoo sax kaani sax duma ko paccal koor daraay lu métti waxuma ko ci voilà xëdd tëdd yeewu ndogu. sa combat bi de la saison si koor gi lañ ay fula du ma bëre koor moom sëñ sellal rek jubal leeral. voilà dëgg rek. voilà xëdd tëdd yeew ndaw waaw ah, at na amul solo. ba fanweeri mag ba mag. boo jugee ci koor nga am yaram. waaw ah, boo jugee ci koor nga am yaram. léegi daan nga keroog euh, njambaan de comme ni ma ko waxee adversaire nag am na ñu laaj am na ñoo bëgg promoteur yi la proposé. waaw ah, adversaire yi euh, sama manager teg naa ko sama loxo manager. Saliou Ba. sama manager ak euh, staff ñoom Diaw Faraak ñoom Lamine Cheikh Seck sama staff Albury bi léegi ñoom ñu ngi si côté boobu di ci kii man lan laa ci am demal bëre ji ma bëre ji kaay toog ma toog a ah, fi mu ne nii dañ maa ci yooyu laa ne. la wax moom loolu ko promoteur yi proposé. Zalba ñu ngi ñuy proposé ku ci mel ne ay euh, Issa Pouye. non jëlee sa morom. ay Issa man ñi ma bëree ñoom samay morom lañu. waaw ah, instant bi ne ma laal ca kaw xool la am na benn booy boo xamante ne na fi bëri ki dem zaal ba nag loolu combat la. ban booy la mook mook mook Batista xam nga Batista zaal ba. kon bu la waa sunu làmb woowee ne la analyser ñu combat Batista contre kii bu ko analyser. non sooy wax ay adversaire u Albouri na ma Batista dama lay laaj kan nga wax. Batista boo xam si cosaan. waaw xam naa ko. mais daan fils de Max. bokkul ci sunu plan de carrière pour l'instant. la wax ci loolu. man nee naa la man man ñoom ñooy décider. la déggoo ma de man ñoom ñooy désiré kuñ ma mënti indil damay bëreeg moom liir sax liir. Petit Sa mënul Zal Ndingler. loolu leer na moom. non waxul ma Zal Ndingler. Zal Ndingler dañu naan Alboury. damaa dégg nga ne Petit Sa du ñeexum ñebe. du ñeexu ñebe. Zal ñeexu ñebe la. déet man kay waxuma Zal Ndingler ñoom. moo man ah, moo man moo man Petit Sa. Zal Ndingler moo man Petit Sa mais yow est-ce yaa man Petit Sa. noonu la demee nag nee naa la fas du jiitu saret ah te gumba du jiitu eh, ya ya li ñu naan gumba du jiitu yatam. yaa ngi dégg de toute façon ñoom ñu ngi nii nee naa la ku war ñaay ba wàcc ko lépp loo waraat ay ay warit la man li may def ragalu ma ko lépp dégg naa ko seen loxo ku ne ma bëree jil kii ma dem ak nu mu mënti toll damay bëree moom. bu ñu demee bëree la kii ak lu mu tuuti tuuti nee naa la liir liir sax ku ma ko boole woon ci géew dama koy tànc ba mu pàcc du ma du ma ko yërëm man la ca géew ba man naa la na yow man du ma wax ban yërëm. du ma am xol boobu. lan. dama ne la kuñ ma munti bëri lu mu ngande ngande lu mu bari doole lu mu mën a bëri du ma ko yërëm booyam bu dee liir sax laa dama koy pàcc dama koy tànc ba mu pàcc si géew. voilà wax ji bari na nii nag mais su ma duggee ci géew leneen ngay gis ay jooy rek la. et puis benn affaire avant ngay bëree soo ñëwee ci làmb avant ngay bëree doo nangoo sax wax. comédie bi yëpp da nga ko jël denc ko loolu kon yow da ngay naxaat. non du question de naxaate xam nga euh, daa foo xam ne ñun làmb suñu liggéey la respect bi ñu koy jox moo waral buñ buñ takkee suñuy jaaji ngemb li bu takk bu takk ba pare foofu caaxaan dafa faa amatul foofu dañuy jël làmb teg indi teg war na war na li nga xam ne moo nekk si ñun ndam la ñuy jë si ndam bari boolu bokkul ak ay coow buñ daanee ba pare nag lépp lu ñu war a def dinañ ko def. mais avant làmb moom ah ak ci géew bi foofu moom loolu moom du ma ko caaxaane loolu journaliste bu ñëw sax mun naa la si ñaaxal kersa ndax loolu du ma ko fooyee sama sama teraanga da cee ne te instant bi kër gaa ngi ne dañoo loué ah euh, bi baraag la ah, bu tawee da ngay mel ni ku fanaan ci biti ah yooyu yëpp ñu war ko gérer ah mbokk yi tamit loolu ay caaxaan mayuñu ko quoi tamit voilà mais daan nga ñëmbaan buuse tamit yéen Boucher de moom nee na xaw ma daa bëgg a bëre man xaw ma. Boucher euh, maa ngi moom du làmm. Boucher bokkuñu palmarès. Boucher deux combats la am xaw ma trois. un deux trois combats am laa seetaan xaw ma trois. maa moom bokkuñu yoon loolu la yàlla def maa ngi moom bokkuñu yoon. bu insister ne ñëw Boucher du ma bëre moom sax fii ndax man maa raw ci làmb Sénégal. MMA nag def na ci loo xam ne defaguma ndax bëri na MMA am fa ndam bu dee MMA nag ñu dem nga xam ne moom moo ma fay may chance te bis bu ñu boolee ci rim bu se karaw sikki bi laay jàpp di buddi di buddi ba mu jeex benn par benn. métti de. buuse buuse lan la may jaay ba mu saf ma lu dul taalibe. ak doole ju bari. buuse dafa ma ëpp doole. mu ngal ne nee naa la yow da ngay jaawale néew ak ak duuf voilà mais buñ buñ dalantee di nga xam ne courant du batterie courant benn ñaata ak courant saam ñaata bokkuñu buuse bokkuñu dara maa ngi moom du làmb. arène bi daal kooku rek nga sonn. arène bi daal instant bi nii ñu ngi def ay démarches su Pape Souley mu sell mi ah taxawaay nekk Sénégal taxawaay taxaw fi taxawaay bu rafet nekkal fi mu get ah ak sama papa Bekay Fadam staff bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñoom it naa ñu ngi dox sama combat ma ak li ci des yàlla na yàlla na ko yàlla barkeel mu sotti Issa Pouye tamit suñu grand la. def na ci làmb loo xam ne ñun defaguñ ko fi ndax Balla Gaye bëri naa Issa Pouye loo ah, Modou Lo bëri naak Issa man man man loo tax ma sawar a bëre moom ndax barki seen bis moo bëree moom mu daan ma ma daan ko yàlla moo xam quoi mais bis bu ma daanee yàlla yàlla la bis bu ko daanee yàlla la mais bis bu ma ko daanee Balla bu ñëwee ma ne ko bëri ngaa Issa Pouye daan la te man daan naa ko Modou bu ñëwee ma ne ko bëri ngaa Issa Pouye bëri naa moom kan mooy wax léegi nag damay mën a toog seen kaw bopp yi di wax lu ma neex Issa Pouye na ma ñëw may ma chance ngir yàlla war a suuli ah ma daan ko yàlla defal ma ci na waaw mu am mbalaxe jolof di nuyu euh, suñ maire bi Aliou Dia ah ak euh, Samba Diobène Ka ak euh, képp ku nekk jolof di nuyu sama papa bu baax a baax a baax Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye jàpp na si sama combat bu baax a baax a baax moom ak jabaram Gaye Wilane wax dëgg yàlla kooku jigéen ju mën góor la léegi. yan ba dégg naa fàtt na jabaru Aly Ngouille Ndiaye. lépp lu góor ne bu ma xëyee def na def ko fekk moom def na ko ci guddi ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax. bi fàtt na. teen bi fàttul jolof heure boo fa demee boo maree naan boo marul naan waa Grand Médine gi may yeewoo tamit xam nga ma fi yaay sama papa baay pël ah. te day gën a jëm kanam ndax 100 pour cent bi dañ ko taxawal xam nga di jàpp jàppale mbëru Grand Médine yi ak waa banlieue 13 sama papa baay pël ay ñoom aali Euh, maron ñëpp borom deux roues yi mafia yi noonu la demee nag ak waa Kaolack ñu ngi leen woo baax a baax a baax waa Kër Massar nañu ñëw di jàpp ci affaire yi xam nga ak waa Thiès waa Ndar partout dans le monde ak waa Europe Paris sama dëkk ba maa ngi fay waaj. donc bientôt bleu blanc. drapeau France. drapeau la. bleu blanc ak rouge ak mauve. drapeau Sénégal. verte jaune. rouge nga diigal étoile ba ca suuf yow. <laughs> étoile fan lay nekk. ci réew ci carte d'identité yi. Euh, non foo ko teg baax na. ci gën rapport bi. étoile euh, ah, ci zone bi bi foo ko teg baax na da xool lu mu jekkee rek nga teg ko fa. drapeau Italie. drapeau zone rouge. ah njaga. drapeau Gambie moom wax tax taxawaay suubu kaaña la taxawee ci réew mi moom couleur bu nekk ca kon moom su ma ko analyser fii lañuy fanaan. drapeau Saint-Louis. Saint-Louis est-ce que du rouge blanc rouge blanc waaw ñoom ñoom ndax ñoom ci géej gi lañ nekk dañuy ak kii awaa ah ci diggante géej gi da ngay sangu ci géej gi lenkalu ci dex. drapeau Mauritanie nu mel. drapeau Mauritanie est-ce que du bleu. adduna bi kan moo fi am drapeau États-Unis daal laa xam ne moom. neex na ma waala ndax am na ay étoiles yu bari te man damaa bëgg lu bari étoile. ban ban ban ban. Youssou Paris euh, Bercy bi. dama koy waaj. voilà ndax donc Youssou Ndour daf ma wayoon euh, à l'époque. waaw xam war ngaa xam ne way boobu xewi na. voilà te saa bi dafa ñëw mise à jour way bi boo xoolee TikTok Instagram Facebook YouTube. ñëpp ngi fooye loolu Alboury demal ta ñëw bàyyi buuna Alboury demal ta ñëw yow doo ngaaxa yow xam nga li fi ne xam nga wax bu garaaw la woon demal ta ñëw dem na ñëw demal ta amul daf ko woyoon wa dem yàgg yàgg dina ñëwaat moom bàyyi si si compte voilà way bi nag dama ko indiwaat Alboury demal ñëw bàyyi buuna Alboury demal ta ñëw way bi demoon na Alboury indiwaat na ko te dañ bu demee Bercy dafa war a ñëwaat voilà Youssou Ndour dafa war a yóbbu Bercy merci beaucoup wax na ma ko euh, euh, moom mi ngi ciy kii sax ah naan ko ba fu ma toog dama koy wax daf maa war a yóbbu bersi ma dem ah dama ko war a fecc bu ko wayee dama ko war a fecc mais xam naa nit ñi ñu naan ko est-ce que booy bu du daw man sama xaalis moo nekk CNG yàgg-yàgg day gaaw baa mu yeex dama koy jël dama am doole damay liggéey fii jaayante sama moromu góor yaa mais damaa bëgg a dem ci euh, Paris ci kii ba ci Bercy bi Euh, dag loolu kin sal fa kin tal googu loolu foog ma kii ko fa alburee demal ta ñëw bàyyi bu na alburee demal ta ñëw nga jàpp ko kin sal po taxin sal ki tamaram wax cekit ran ko kun ko kun kun ran kun re rek jër bersi bi tas ku a dem dara xewul kontaan naa ci waaw kontaan nañu bu baax a baax a baax yàlla na yàlla def jàmm ak waa Lutte TV yëpp noonu la demee nag